asalaamaaleykum wa rahmatulah wa ñu leen di leen ziyaara bu baax a baax du lahum di jaajëfal ñëpp di leen siyaare ci e, liggéey yu màgg yi nga xam ne moom la ñu nekk toujours ngir sensibilisation comme ni ko sëriñ xaali di waxee di ko def nit ñi pour ñu xam wahabiyun yi commerce gi ñu nekke te àdduna rek tax moo xam bind dal ci kaw nit ngir am dara wala sax léeg nga bind eh, ci sa bopp ngir am dara ñaar yëpp am ñaar yëpp nag dafa am ci kooku ñuy wax Modou Lo bindoon na fi dal ci kaw nit ngir am dara ñépp seetlu na ne mujjoon naa am dara nag ci wàllu àdduna mooy téere bi bindoon tuddee ko taqdisul ashxaas fil fikri suufi ŋàññi ci ay nit wax ci lu ko neex ba doon ki mu doon tey natiijata ŋàññ yooyu ak wax yooyu nga xam ne moom la sol ca téeréem te du dëgg ci bëggu àdduna googu nag ak fexe fës ba jariñu euh, loolu dañul ci moom ba léegi euh, feeñati na ci téeréem bi bees bi nga xam ne xam naa ci semaine bi xëy na ci la génn mu tuddee ko maxataatun fii xayaati yatim e, muy téere boo xam ne man unwaan bi neexoon na ma lool ci bi ma ko gisee ndax man damay bëgg a liir lépp loo xam ne am na njariñ rek ak ku ko mënti bind e, li ma ko jëkkoon a teg mooy livre boo xam ne xëy na genre livre riwaaye yoo xam ne roman yooyu nga xam ne léeg day nettali ab xisa léeg-léeg ci nettalin gu neex ak eh, am mutaa tuuti ma ne xëy na dafa am histoire bu muy nettali yaa jë jëmuma woon sax yaakaar ne xëy na ci boppam la déedéet ma jàpp ne benn yetim rek xëy na lenn ci ay jaar-jaaram eh, ba tax ma ma ma ne may wër nag fan la am pour ma jëndi ko ci diggante wër boobu nag laa la la ma am ku ma wax ne maxataatun fii xayaati yatim boobu boppam la ci jublu maanaam téere bi ci boppam la ko bind ci ay jaar-jaaram daal ba tey ngir bañ a changer situation bi bañ a changer sama euh, dogu gi ma amoon ngir am téere bi ma ne amul problème ba tey ngir ma xamee ci sax lu bari ci moom Euh, donte jafe na nit bind ci kiwam nit bind ci boppam wax dëgg carrément faaw mu faral boppam ci nettali gi waaye ma ne na seres sax dinaa xam dara loo xam ne xawma ko woon ci ay jaar-jaaram wala ay kiwam xëy na dana joxe sax ab diir boo xam ne euh, dinaa ko jox jëmm ji bind loolu euh, ngir loo xam ne xawma ko woon ci moom lu bees lu ma xam waaye nag loolu lépp nag ba jënd nga amee ba liir ba noppi ba tëj daanaka mbetteel ak euh, xol bu naqari laa ci am nag ci euh, liir gi euh, mbetteel mbetteel bu njëkk gi nag mi ngi aju ci unwaanu téere bi maxataatun fi xayaati yatiim yaani loolu yatiim bu ñu xam la cest à ab ay jaar-jaari benn njirim bay jaar-jaar wala ay station ci dundu benn njirim njirim boobu nag mooy nettali moom ci boppam mooy nettali lenn ci ay jaar-jaaram e, maanaam mbetteel gi fi ma ko amee njëkk nag mooy ci biir liir gi damay jàpp ne xëy na diirub xam nga marxalatul yutmi dafa dafa am maanaam diggante yatiim mooy koo xam ne baayam dafa génn àdduna te moom mu nekk xale ba ba muy majeur nag yatiim lañ koy wax waaye bu xasee ba majeur nag nekk mu kallaf nag nekkatul yatiim moom beneen bi itam mooy su fekkoon ne dafa dem ba majeur ba nekk mu mukallaf baayam door a faatu itam kenn du ko woowee yatim yatim moom ñu ngi koy woowee xale ba ba muy màgg fekk baayam faatu na ci diggante boobu waaye maanaam li ma ci bett en tant que ku doon liir mooy di liir koo xam bi muy am ñeent fukki at lay boppam lay adressé boppam al mu moo def nangam mu jóge Arabie Saoudite mu bind doctorat yatim bi mooy <laughs> bind doctorat mu ñëw mu def nangam mu jàngale mu fayee xaalis mu kii yëpp yow kooku kooku mooy al maanaam ci biir tàmbali gi ak jeexal gi yëpp maa ngi jàppoon ne diggante marxala yi nga xam ne maanaam mooy marxale yi ngone xale ak nam fa màggee en tank que ab yatim loolu lay def li fekk moom dundam gi yépp lay nettali bi sifatihi yatiman bi sifatihi yatim beneen bi mooy dangay jàpp ne li ma nax ci liir bi mooy damay jàpp ne booy liir da ngay liir ay jafe-jafe yoo xam nit ki def cee romb booy liir da romb ay jafe-jafe yoo xam nit ki def cee romb euh, comme ab jirim romb ci ba pare euh, góor-góoru génn ci difficulté yi euh, ba ba ba mel nii mu mel fekk ne affaire bi kaa bi melul noonu c'est-à-dire su ma doon joxe natiija damay wax ne yatim bi kii lim nettali ci téereem bi bu baayam doon dund du am du am loolu masalan inaaya maanaam wat nit ñi jàppale giñ ko jàppale ak niñ ko saytoo ni ko ni ko ni ko ay mbokkam dimbalee est-ce bu fi baayam nekkoon dina mën <laughs> loolu dina mën a am daa di nit koo xam ne dafa faatu fekk baayam dafa faatu te juddoogul mu juddu fekk baayam faatu na ay mbokkam nekk ay baayam moom moom am na ci ay baay lu mat fukk moom ñoo xam ne ñu ngi taxaw ak ci ak càmm gu wér wuutoo ko baayam ci lépp lu mu soxla nag bu waree jàngi ñu dalal ko bu waree kii ñu de yóbbu ko sax daara yi muy nekk nag du nekk daara yoo xam ne yu mu xamul daaray baayam la maanaam koo xam ne moog baayam ñu bokk baay ci yooyu lay jànge ay magam ñoo koy jàngal ba mu mokkal alxuraan maa amul benn jafe-jafe boo xam ne dund na ko ci àdduna maa jafe loo xam ne jafe-jafe la boo xam ne eh, kii na cest booy liir eh, da naan kii lan lan la dund lu metti lan la dund lu metti booy xool nag ma xattaatun fi xeet da koy sawar a liir pour ne ay jafe-jafe nga nar liir tey fekk foo dem doo fa gis jafe-jafe yow Eh, téere bi yépp nag daanaka yëkkati sa bopp la <laughs> maanaam jël sa bopp daal teg ko ca alal maraaqi wal mustawayaat yu yu kaweyee <laughs> mu ne dafay nettali xissab gone goo xam ne dafa màgg eh, daati jànkoonteeg ay jafe-jafe xatta taxatta jibaalan min al masaa'ibi wa qafaza ala qanatira min al masaibi dégg nga noonu xatta balagal gaayata wa rafaa raaya <laughs> maam moom egg na fi mu toll nii raaya ga ci lay egg fi mu toll nii nii mu toll nii li mu nekk nii mooy raaya nga xam ne léegi daf la koy deseneel yow pour nga jaar ci ndax moom dafa jaar ci ay jafe-jafe ba àgg ci njobbaxtalal fi mu bëggoon a egg fi mu toll nii wasalal raaya moom ahmad doon nii te day adressé boppam ci yatiimun latiim yatiim mooy mooy ku bàyyam faatu latiim nag mooy ñaari wayjur yëpp ñooy faatu te moom baayam moo faatu waaye yaayam bi muy faatu moom mu kallaf la moom e, marxala bu mu nekk nag nga jàpp ne tey la fi dund ab jafe-jafe bis boobu lay gën a lay gën a kii man bi may liir ba àgg ci Eh, fi fi fi fiñ nekkee ca àll ba gannaaw biñ jàngee ba noppi dem di bay dem dem ca tool ba ñu ñu eh, seen magum daara ma di boole par ñaar ñuy xeex man dama ne tey moom saa waa ji tey lañ koy fëgg ay kurfañ ba ñu bëgg a dee eh, far ci loolu ñu boole ko kenn suul suul seeni ki suul seeni tànk ñu ñu ñu jàkkaarloo di xeex foofu nga xam ne fa la waroon dund jafe-jafe nag fa la jàppee waa ji da ko kurfañ kurfañ kurfañ ba ba ba deret gi di sotti am ah, moom amul fu ñu ko dóoraa <coughs> maanaam fu ñu ko dumaa wala fu mu mosee jafe-jafe wala fu fu dara mettee ci moom daal moom dem na ba nee bu daan bëri da daan dóoru gars yi da leen da leen mbotti mbotti yu yu a wér Eh, gars yi na dañ ko doon wax yow sa maam daf lay def daf lay defaral soow nga koy naan te ñun amuñu soow xam ne kon moom yetim boobu moom fi mu egg kenn <laughs> cig noos waaw ah, même ba mu demee ba mu màgg ba ba nekk ca biir Touba ak di kii yooyu mbàkke mbàkke yi ewulëre baayam lañ léeg-léeg sëriñ daara bi yóbbu ko yónni ko ci Cheikh Abdoulaat mu dem Cheikh Abdoulaat may ko yére ak cinq mille francs ca jamono jooju soixante douze soixante treize cinq mille franc ay mbokki bàyyam buñ ko gisee may ko junni ay xaritu bàyyam may ko junni <laughs> moom amul fu mu dundee jafe-jafe wala fu fenn rek la dundee jafe-jafe mooy foo xam ne ka ko jàngal alxuraan ba mokkal ko kooka moo ne ko nag dama bëgg nga arrêté njàngu majaarif mii ngay def ngir nga walluma ci tool yi ba ba ba ba ba bañ ba bañ kii ba ba tool yi jeex ba nawet bi man nawet bi jeex nga door a continuer waat mais mënoo nekk sama kër ba pare doo dem tool doo kii mu daati gedd kër ga génn gedd kër ga moom génn euh, dem dem du dëkk feneen affaire yooyu <laughs> waaye loolu nag mooy après majeur ba ba mu ba mu nekkee mu kalaf nag ba am fukki at ak juróom-ñett ak fukki at ak juróom-ñeent ñaar fukki at. voilà maa amul fu mu dee jafe man lool sama sama problème <laughs> lool la man dama am problème trop trop trop beneen bi mooy képp koo xam ne. Eh, mos nga koo def dara xamal xamal lu ko metti xamal ne tey ci téereem bi danga danga ci jël sa wàll masalan eh, eh, ca daara jëm nekkoon mu ne am na ku ñu fay wax Serigne jóob xamul woon dara ci njàng ñu ñun xale yi sax ñun ñoo ko rawoon xamul woon dara dóore la mënoon <laughs> nangam nàngam nangam ca poroxaan tamit mos na fa nekk si si Moustapha Basirou di ko jàngale loo foofu Euh, xam naa daati jël ay mbiram nag ne ne diw ak diw ak ku ñuy wax Cheikh Coy na ngeen koy toppatoo daal lu mu soxla ak lu mu kii ak yooyu xam naa ñooñ nañ toppatoo nga dafa des <laughs> ñoom it ñu jël seen wàll mu du Cheikh Coy moom moom moo nekkoon fi ma doon jàngalee moom moo fa nekkoon mudir waaye moom kaana ummiyan laa yaqra'u wala yaktubu walaysa ladayhi ayyatu xalfiya ci ci wàllum njàngale nangam nangam maanaam képp ku ko mos a def dara daal xam naa ne moom danga am problème tey ci téere bi beneen bi mooy amul amul lenn lenn loo xam ne maanaam asiya salbiya la yoo xam ne moom cité na ko ne moom jaar na ci waaw ah, moom moom defuloo maanaam te marxala bu mu jaar itam marxala bu mu jaar itam maanaam bu nekkoon doon jàngale di jàngale ndoo ak kenn ñuy nekk ñaari jàngalekat ci ab dëkk dana xas waa dana moom amul woon <laughs> wala mustawa taxu ko woon a kii nangam ak nangam affaire yooyu daal sànni daal ne wala kinnal yatiima kaana batalan fii kulli nangam ak nangam <laughs> te yetim bi mooy moom waaw bi muy wax ci daara ji mu nekkoon tamit te sëriñ ba gaaju doomu sëriñ ba yor daara ja mu ne dem na ba affaire yi mënatu ko yor ndax xale yi dañoo màgg di dem di taxawaalu ji ak di kii ak di di di di ñàkk topp ndigal ak di di di bëlët ka mariage ka dam yéeg yu mel noonu xam nga yooyu yëpp moom waxul ne sax ci la bokk ca ca féetaru googa waaye ba mu demee ba ci kanam daf ne nag wa kaanal yatimu batalan fi kulli haadi eh, ma tilka lu'bat maanaam fo yooyu yëpp ay dam yéeg ñoom ñoom wuure kii ak yooyu eh, mariage ak carte ak yooyu noonu bëlët nee na yooyu moom batal la ci woon xoola football moo ca rawoon daw moo ca rawoon jël bi jalaanoo moo nee na moo ca man eh, kóol nee na moo ca man eh, njàng <laughs> maa amul benn lenn lum niil moom loo xam ne xamuñ ne dara amul eh. Euh, du adressé boppam dara lu loo xam ne yaani euh, yu naa fi al muru wala nangam loo xam ne daal dañ naan lii daal ab sikk la ci moom mosoon na ko mosoon na caa jaar moom mosu ko nettaleegu ko moom ci bi leen la ci xawoon nettali mooy di déglu Umu Kalsum déglu musique eh, Umu Kalsum daa déglu nangam nangam ma man ma ne ah, kon tey nag am am na kii bu mu bu mu adressé boppam nag mu daati mujj rek daan ne loolu nag xatta suyuxu diin dañ ko daan déglu nag waa daan na nag eh, samaaul agaani yaani kaanu yuad yuaddunaha eh, juz'an la yatajaza min ad-diin xatta ak suyuxu diin yi dañ ko daan dañ ko daan déglu nangu na <laughs> waaw nga xam ne léegi bu dee ba am loo xam ne daanaka xaw na gàkkal affaire bi daf koy làmbale <laughs> gaa yëpp <laughs> eh, beneen kii bi ma ci bi ma ci seetlu moo ci seetlu mooy eh, moom dafa teel naa bëgg kii maanaam yëngatu am dara daal xaalis maanaam xëy na loolu sax mu taasiir na ci moom boo moytuwul dara waaw ah, ndax wàllu xaalis moom xam naa ne xam loo la nag moo tax <laughs> am da ngay bëgg xaalis tuuti waaw ah, loo yi mëloo yi ñu ñu baal ma ndax eh, moom ndaam gi mu doon jànge alxuraan jotu fa mokkale dafa jóge ñëw tuubaa ngir mottali e, alxuraanam diggante foofu mu ñëwee tuubaa nag avant muy jàngi def na fa lu def na fa lu nekk c'est-à-dire e, dem na fa ci ci ak ku am fukki at ak ñeent de la ah, quatorze ans dem ci ab benn e, kii fuur ñu koy jox ay mburu muy wër di jaay di ci am weccet <laughs> trois cent francs trois cent francs yooyu mu ci am lu mu ciy koro di ko denc ba mat ba mat deux mille cinq cent mu dem jëndee ko welo dem ca ca ca boori kii ba ca tali ba di di luye di luye <laughs> xale yi di ci am ay mille francs par par par bis xawma nangam nangam yooyu nag ca la nekk nekk nekk nekk rek ba moom ay mbokkam ñoo ko jàppale waaye da doon da doon saa da doon <laughs> mën naa am da doon sànku ci sax léegi nag ay mbokkam nag ñooy ñëw nag gis ne nag kii nag dees ko war a jàppale nag jële ko xama loolu taxawaayu bàyyi lañ taxaw ñoom ñoo koy jële foofu nag yóbbu ko daara ja nag asan mi nga xam ne magam la ñu bokk bàyyi jël ko yóbbu ko eh, daaru man daaru man nan ngir mu toog jàng ci moom jàng fa ba mokkal fa alxuraan ak nangam ak teewul gannaaw ba mu mokkale ba noppi nga xam ne defatul lu bari day teel xale yeeg di leen bindal daf daan da daan génn daara ji léeg-léeg di dem di dem di jàngi ji tailleur maanaam faw mu wuti lu koy may dara ci xaalis waaw loolu nag maanaam eh, ilaa yow mi loolu loolu loolu loolu mooy dox beneen te am na benn maxt kii bu mu wax bu am boo xam ne jar moom laa doon laaj léegi ñu ngir ñu gëstu ko mooy daf doon wax ci baayam lu tax mu tudd Modou Lo Isa Modou Lo Isa Isa yaayam la mu ne nag idaafa yooyu kaanat aadatan muttabaatan xaytu yusniduuna alkubaraa dawman ila ummahatihim loolu sa ibaara bi suñu toon daanaka lam tàmm wax ca taqdis xam naa léeg di jës mu yoo xam ne daanaka dara du ko ci wër maanaam mu ne kilifa yi dañ leen daan askanale ci seen waajur yi toujours mais loolu kenn xam lan la maanaam kilifa yi la daan askanale wala nit ñi rek nit ko nekk dañ leen askanale ndax moom ci téere bi dudd na fa ay xale yo xam bokk na ñom daara ñu ay Mor bintak Mor ay Aysaak nangam ñoo duñ ay kubara waye nak baatu kubara bo mu wax na dafa am ñu ci bëgg binal daf ci bëgg binal ne moy lim lim wax ci ba mu tege ibara bi li'tiqadihim anna salamata tawajjuhi l um wa tafaniha fi khidmati zawjiha hiya al amil al mubashir fi najahi al walad fi hadhihi ad-dunya manam neena li taxoon ñu daan askane jur yi maanaam ñu daan askane nit ñi ci seeni eh, wayjur yu jigéen mooy nit ñi dañoo gëmoon ne maanaam liggéey bi nga xam ne moom la moom la jigéen gi di liggéey ci kër jëkkëram moom mooy liy tax nit ki réussir ci àddunaam nee na moo tax ñu daan askane nit ñi ci seeni yaay xam nga loolu mënoon ngaa wax ne rek yaakaar naa walla ci sama njort wala li may <laughs> nanga waaye jës ne loola buñ koy def di askane nit ñi ci seeni wayjur mooy nàngam nangam moo taxoon dañoo amoon gëm-gëm sàngam moo taxoon loolu tamit wax na ko ci ci ci lu bare bari ci téere bi ba muy wax ci li ko tax li fi mu njëkk a gisee téere bu ñuy wax sifatu salaati eh, nabi li albani foofu la gisee ay xadis yuy wax ci xabdu mu tàmbalee xabdu ba pare di dingat gaa yi naan leen naan naan naan leen yooyu ngeen di def noonu maanaam ay kii la rek maanaam ay ay déggini way jur yii la rek déggini way jur yi maanaam mazhabul aba la tuddee daal sadlu wàccee say loxo moom la tuddee mazhabul aba li mu li mu gis ca téere boobu moom la tuddee sunna ak nangam moom daal doy na waar maanaam daa man damaa am problème ndax moom amul sikk amul sikk yatim boobu amul sikk amul lu mënul timit amul ku ko mësu duma kum nettali moom ñu dóor yëpp da dóor ba ba seen bopp yi di di nàcc mais moom daal moo amul lu ko metti te yetim la kat man maxataat yi nga xam ne moom la nett maxataat fi xayaat bu naqari <laughs> yëpp samay maxataat laa war a bind fi man moom jàpp naa tey damay bind maxataatun fi xayaat fi xayaat man yetim laa itam sama ba sama wéjur faatu na ah ma tàmbalee bind samay maxataat yi mu xam ne moom dajul dara Eh, <coughs> xam naa daal quelque mulaaxasaat yooyu daal laa laa am ci ci téere bi li ne daanaka téere bi fi mu toll nii jëndee ko 1000 francs fi mu nii daanaka <laughs> kooku ku mën a yàq dëgg moo koy def waaw waxuma daal ne ñoom ñu ko jaayee 6000 francs te man sama la mooy al juzul awal biñ ci def mooy ne waa ji moom pare na pour joxaat ñu dara ci ay dundam tuddee ko al juzul saani loolu lépp ci commerce gi lay dugg. doy na waar waaye daal li ma ci mën a retenir ci ay mbir yoo xam ne moom daf koo ameel ak njukkal ak ak ak kii goo xam ne daf ko ameel al muridiya bi shaklin am <laughs> kilifa yi nag kilifa yi yi ko defal yooyu bi shaklin xaas daf leen ko daf leen koo yoreel waaye ibaadu moom wahabi moom daanaka moom du delloo njukkal ci li ma ko gisee ndax booy liir téere bi ñaari ndénkaane yu ko ay kilifa yu murit dénk jàpp naa ne ñaari ndénkaane yooyu mooy li ko defar moom bam sax e, xënte woo e, jàng ak yu mel noonu ba ca jëkk mooy Cheikh Abdou Lahad ca tubaab Belal gannaaw ba taree alxuraan ba noppi mu xamal ko ne nag da nga war a sóobu ci yoonu jàng xiirtal ko ci loolu de moo tax ci diggante bi sax dem dafa di jàng tailleur ba man ko waaye nag mu xalaat la ko ci Abdoul Ahad waxoon ca Touba Belal daati kiiwaat nag daati la ci la daati geddaat kii ba nag jéem a xool nu muy jàngee ndax waxoon na ko de loo def lu dul jàng daal daanaka nangam ca la ca la métier yam doon jéem a jàng yëpp ci la ko jéem a bàyyee <laughs> beneen bi mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma gannaaw ba mu ko bañ koo embauché muy jàngale ci yenn ci ay kiwam ci ay école am e, téewul boo ko ba mu ba mu bañ defee ndaje mu mag ma ba ba mu nuyoog moom ba noppi def ne ko yow mii danga war a génn réew mi waxuma la nekk fii di jàngale waaye nga dem jàngi ci biti ñaari ndénkaane yooyu daal ci wàllu xam-xam mooy ki li ko defar moom moom daf leen ameel njukkal waaye waxuma la delloo njukkal nag waaye nga dem ba bind sa téere ba dem ba jàng ba ñëw bind sa téere ne <laughs> mutasawifa yi fonkuñ xam-xam dañoo noonu xam-xam ak boroom xam-xam yi fekk yow ñoom ñoo la conseillé pour nga jàng ñoo la jàppale itam man daal jaaxal dafa waaj yi doy na waar de te yonent bi dafa waxoon ci xadis bu wér ne laa yutma baada ixtilaam maanaam nit ki su majeure yetim amatul foofu waaw <laughs> yatiim amatul foofu kon nag nañu dimbaleeg ma xataatun fii xayaati yatiim yatiim ban moom affaire mi nga yemoon kon ba muy tari alxuraan rek fa la mbir yemoon ndax foofu daanaka lekk na mu kalaf bu amul vingt ans itam jege na ko waaye li ci topp ba ba muy am doctorat ba ba ngay jàngale ca jëlóor ba Dakar Mbay ah, <laughs> ba Arabie Saoudi ba Sénégal ba doctorat ba ba master loolu loolu marxala yetiimu kan ku yetiim bi foofu boroom kër bi ami doomam mooy yetiim subhanallah en tout daal man daal jënd naa ko liir naa ko waaye am naa lu ma metti te bëgguma kenn jënd ko itam waaw ndax yëg naa ne commerce giñ doon laam-laame loolu moom mooy li ci am ju maxuma naan ñu naan juzu awal ba naan ay juzu saani lay xaar caaxaani neen salaamaaleykum